damay ñëw Cheikh Mountakha Ndao ma bàyyi la nga nuyoog téléspectateur Sept TV alhamdulilah alhamdulilahi waxdahu wasalaatu wasalaamu ala saaibi sayaadati alqahsaai wa martabati alfaqira man bi xisaali ruuxi qad taxala wa bi xisaali nafsi qad taqala muhammadin mumidu rasulillahi wal anbiya wal awliya awwaa'i wa radiyallahu an qutbil maktuumi wa barsaqil maktuumi cheikhina abil abbas ahmad abna muhammad tijaani wa an xalifatihi cheikhina cheikh sidi àla jomar ndaw wa jami usratihi aquukum fillaahi wa fi tiin uhayyikum bi tahiyatil muslim aqulu lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi nuyu mbokki jullit ñi ci ndigalu xalifa cheikh Mouhamadul Bachir ak rakam di nuyu mbokki taalibe yi di nuyu waa réew mi di nuyu waa kër gi di jiital nuyu bi yow Serigne Moustapha yow mi ñu jàkkaarloo ci émission bi ànd ci ak suma rakk alaaji cheikh naa Tidiane yu Tahir ànd ci suma rakk di doom di taalibe ci kër gi di xarit di Mouhamadul Habib mii ma dendat ànd ci ak mbokku taalibe di rakk di xarit ñu koy wax Aliou Manka ànd ci ak mbokku taalibe di doom ci kër gi ñu koy wax seexu na tijaani yu diba mële nga xam ne ci moom lañ dal fii ci wakaam ci këram euh, ñëw nañ fii tey ci ndigalu kër gi te mooy xalif bi teewal fi njabootu Seydi Alaaji Omar Ndaw ci waxtaanee kan mooy moom ci li ci jotaay bi maye ak lim wax yàlla wax ko rasululaay ndax ci weeru rasulullahi ci lañ toll te mooy weeru gàmm bu ñu demee ba ca kanam bëgg nañoo waxtaanee loolu ci moom lim ci wax mbokku taalibe nag fu nit mën a nekk rekk ci aduna bi ñu ngi lay nuyu di nuyu alaaj Njaay mi nga xam ne léegi mu ngi ci Amérique këram lañ jógee léegi soxna moo ñu toggal añ suñu rakk Absatu Ndaw waaye di nuyu it njabootu Seydi Alaaj Ndaw gi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bii di ay doomam yoo xam ne moo leen jural boppam muy ajaratu roqiyatu ndaw di suñu bàjjan ñu koy nuyu di nuyu suñu baay euh, Alaaji Mot su koy Siise ak njabootam di nuyu soxna Umaamatu Ndaw suñu bàjjan moom itam muy doom ci Seydi Alaaji Omar Ndaw ñu koy nuyu di nuyu njabootam di ñaan yàlla bàyyi seexu yàlla yokk leeram ba ci suñu bàjjan su kay moom itam mu ngi ci dëkk bi ñu ngi koy nuyu di nuyu suñu jigéen ñi nga xam ne ñoo ñoo ma bokk bàyyi yàlla dogal ñu nekk ci dëkk bii di Ndakaaru di fi sëy ñëpp ñu ngi leen di nuyu ndax lii ñoo ñoo ma ko bokk te cër biñ ci am lañ ci am muy Seydi Alaaji Omar Ndaw Seexu Alaaji Omar nit la ku tumaranke tumaranke nag suñ ko waxee nit lay doon waaye da doon moom nit ndaw ndeg bañ ko xam ci mbiram dara waaye yàlla fa di buur xame coobare yi doxal lu ko neex waaye kenn la ki ko yàlla def ndax daan na wax ne ku demee ni man soo koy compter sa baaraam yi duñ buur boo benn ñaar doo am juróom ci ku mel ni man ni mel nag yàllaa ko ko melandi ci réew mi la juddoo fi la jàngee fi la nekkee lim nekk lépp fi la ko nekkee góor gi ko jur yu Daawa Ndaw lañ koy wax eh, damay wax ne buñ ne la seen sëriñ bi kuy sëriñam ne ko baayam moom moo ñu li Omaru Najli sayqihil ali al aafisil mufassari sakki yi baayam mooy sëriñam moom moo ko jàngal alquran ba mokkal ko moo ko ko tafsiral bàyyam moo ko may tariqa tijaaniya moo ko may muqaddam waaye maqaam mi mu xamee nag yàllaa ko ko jox mu nekk xalifa rasulullah ci kaw suuf gannaaw nuyoo bi ma taxawandi ñu gën a dugg ci waxtaan wi. Euh, ci jot na nag euh, Sénégal xam mooy kan waaye jot na yit ñu xam réalisation yi nga xam ne def na ko digganteem ak gàmmu waaye digganteem ak taalibe yi digganteem ak mag ñu baax ñi nga xam ni euh, boole woon nañ leen ku si mel ni Serigne Saliou Mbacké ku si mel ni Maam Abdou Aziz loolu yëpp dinañ ñëw si biir waxtaan wi incha allah rabbi euh, waxtaan seeg yow nga faram fàcce ñu ko fii Cheikh nga nga nga zikkaral ñu tuuti rek ñu doog a ñëw si si kii ndox ndax xam naa ni moom gars yi fi mu nii nam nañ nam nañ tuuti zikkar yi أنت جواد مجيد نحن أربايا سماد يداو من الأغوان مهتمد على نوالك يا سماد يلاو أنت رجاء وملجاء ورازقنا سفو المنافع سماد يداو وقبل متابا لعبد سالم وجيل يا قابل التوبة samadu yàlla wacib sara irasi hubin wasira xaybin ilalla xayiqi samadu yàlla waftaqasa ina an waarin wa mahrifatin ala asirikaya جد بمفاتي أرساق ومرأمة لراقب ساق يا سماد يداو خساتك القلق متاجن خاتباتا يا مالك الملك يا samadu yàlla mustamtiri na jamihan masnu mawhibatin ya mugziral jodiya samadu yadawa qasadakal hibutam jidan wa zumrataw safawatu khalqika ya samadu yàlla nee na saweetu naati an xilan yu karrimo alu samawaati ya samadu yàlla taharto saafiyan mustamilan zurafa yaxlul qalaa'iqa ya sama doyala neena waj hal basirati ya rahmanu mu siratan afdal khalqika ya sama doyala hata usa hidaya rahmanu tal hasau sama doyala أوجات خلقك ديرا تريد بقدرة القدس يا قادر يداو نفست مكاكا ديرا ومنفردا بالملك والمجد يا قادر يداو نين وأنت تجداس يا أوت دماء بقدرتي لك يا قادر يداو ويا قنبسة تهاق قائمة to jeddo as yaa neena am day taw makaafi takwiin si adamin mazor wasfikaaya qaadiro yàlla awwalu man kaana mak dooran wasaadabin خير البرية يا قادر يا الله نين أخلصت سيدا نورا توام ملاو حق المواسيق يا قادر يا الله أهتيت ربي أن وارا ليلبس فوق لفادليا قادر يلا وطر ربي بو وابا لتوليا تقسيم جودك يا قادر يدا وقدر إلهي يا قادر رؤيتا madaadowo rikaaya qaadiru yàlla neena waxtur ilaa iyaaya qaadiru royataw neena waxtur ilaa iyaaya qaadiru royataw xalif basir waxtur ilaa iyaaya قادر رؤيته مدى دهورك يا قادر يداه صل وسلم عليه سرمدا أبدا ولا لواسبيا قادر يا الله تنوت خلقك بالمختار قاتبا نينا تنوت خلقك بالمختار قاتبا خير الخليقة يا قادر يا الله آتيت ربي وانا تفضلهم على البريات يا قادر يا الله واغفر لنا ربيعا وارا ومعرفة بغد الفتوحات يا قادر يا الله واقدر لنا ربيعا رارا وافية مع الكسوفات يا قادر يا الله واغدر لنا ربير وانا وقنيتنا مع سادات يا قادر يا وقدر لنا ربيتا حقيق ولايتنا وطاعة الحقيقة قادر يلا نينا وحضر لنا ربيت قيق ولايتنا نلن وحضر لنا ربيت قيق ولايتنا خليف بصير وحضر لنا ربيت قيق ولايتنا خليف بصير وحضر لنا ربيت قيق ولايتنا نينا وحضر لنا ربيت taw ku ndaw def leen nii waxdur lana rabbi tax yonent bi waxdur lana rabbi tax def leen nii waxdur lana rabbi tax xalifa basir waxdur lana rabbi tax qawilayatana wataatil xaqi يا قادر يداه وقدر لنا ربنا أحسن خاتمة ما ليبتي يا قادر يا eh, li nga jàng neex na loolu wax dëgg yàlla xam naa du ñàkk Cheikh Mohamed dañu dañu ko firir ndax nit ñi soppe yi am na ñu may message naan ma euh, jàng bi bëgg na ñoo xam lu muy tekkeeg yooyu ma ne ko waa baax na yow xam naa ni du ñàkk di nga ñu ko firil noonu la ñuy def di si siyaare suñu xarit suñu kilifa euh, suñu lépp euh, moom Cheikh Mouhamadul Kabir Ndoye di suñu waayu bopp di mu mu Baay Ñas nekk foofu di liggéey liggéey bu am solo si bitim réew ñu ngi koy siyaare bu baax te di ko jox wàcc waayam koo xam ne day sonn suñun la ku mën a yëkkati teraangaam di ñu ko jox la moom Cheikh Mouhamadul Kabir Ndoye ñu ngi koy siyaare bu baax moom njabootam gépp euh, taalibe sang barxaamu la ñu koy siyaare di ko jox wàccuwaayam bu baax baax di siyaare euh, Cheikh Omar Cheikh Omar nga xam ni moo tay wax tax tey lii am euh, di suñu xarit di suñu kilifa moomit di suñu lépp borom wi nga ko am nga xam ne yàgg naa bëgg wax dëgg yàlla lii am waaye nag dañ ne eh, su lu jot rek yomb te xëy na tey lay doo ko jot ba tax na tey daal bëgg nañoo découvrir góor googu nga xam ne wax dëgg yàlla dafa toog si rëkkoom rek eh, wax dëgg yàlla buggul sax siiw te xam naa ne loolu moom mii dinañu si indil mun sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa kan mooy Cheikh Oumar Ndaw sëñ Moustapha mooy jàmbu tumaranke nit koo xam ne gannaaw bu mu amee ndey ak baay ñu jàngal ko ba mu mokkal alxuraan dafa wutiwaat jeneen baay te mooy Seydina Muhammad soxna ndaw mu ne man néegam ndey faluma li ma xamee donnu moo ko ci baay doon moo ko ci néegam ndey yàlla ak yenn tamit ñoo fal mu jóg nag jublu yàlla moom ne yàlla mu muqaddiman faadilan wala wajjahtu qalbi ilayka rabbi ashabahu wa basitan li yadaya yàlla man Omar Ndaw jox naa la sama xol bi te wajjahul qalbi ya def naa ko boole naa ci jëmm ji jublu la kon dese desetuma dara ndax man maa ngay ñaan wa af ni nii rabbi min ruuhin wa min jasadin fi hudati saati yaa sayidu ya allah man Omar Ndaw yàlla nga jeexal sama jëmm ji sama ruuxu gi na jeex ci wuxdatu saati bi man fadila mhm. nekk ma di aji jiital fadilan ka di aji gën ñu ne ko xamuñ ci gën mu ne ki may wax saada sang na mu xalli moo ko ko doon jàngal ñu ne xamaguñ ko ki sang ki ko doon jàngal kan la mu ne ahmaduna al mustafa ndax jibril moo jàngal seydinaa muhammad iqra waaye la jëma ndaw ne na seydinaa muhammad moo sang jibril kooka nag yàlla ji ma la jubloo kooku laa teg sama diggante yow kooku moo may omat xam nga noo koy defee wa rabbi habdaka yaa rahmaanu saa adabin bi yadi hibbika man yàlla yal nga yaree sa jaam bi di Omar Ndaw muy borom ak teggiin ndax fi mu jëm dafa laaj teggiin nga yaree ma ci loxol rasulullah na ma yenent bi la yar kooku yonent bi moo ko yar su ko yar lan la koy yaree mooy jikko ji yonent bi Seydina Muhammad jikkoon si Alaaji Omar moom la amee mu ne lépp lu yàlla digal Seydina Muhammad képp kuy jiite mbooloo te yàlla tax loolu la la yàlla digal te mooy walaw kunta fastan xaliisal du ko def nit waaye soxla jama ndaw Moustapha xalifa bi yeneen bi la ci kaw suuf 1927 ba 1977 moo nekk xalifatullaahi fi ardihi sa Thomas Cheikh naa Tidiane yi moom lañ laaj xaqiqatul qutbaaniya lan mooy dëgg dëgg maqaamam qutbu samaan mu ne hiya xilaafatul xosama mooy xilaafa gu mag gi xay suma kaana rabbu ilahan fu yàlla di borom nekk fa buur foo wa xalifatoo fépp foo xam ne yàlla buur la fa rek ala jama ndaw xalifaam la fa ndeg wutu gi mu wutu Seydina Muhammad ci 27 ba 77 yàlla mooy ko yenent bii ko yar ci loxoom mu ñaan ko mu jikkoo jikko ya te mooy jikkoy alxuraan ndax sayidna sayidatna Aysa lañ laaj jikkoy sayidna ma mu ne kaana xulqoo quraan yenent bi jikkoy alxuraan la jikkoo seexolaa jamono jikko yenent bi la jikkoo bëgg gi mu bëgg yenent bi nit jotu ko ci xam gi mu xam yàlla nit jotu ko ci yàlla moo tudd walilaahi lasmaawul husna fad'uuhu biha téere bi ñuy jàng lasmaal usna la min allahu ila sabuur juróom-ñeent fukki tudde ak juróom-ñeent moom la woy ci téere bi tuddee ko yawaaqitul farahidi fas ko ca bopp ba ne alhamdulillahi si tafdili yaa allahu xaq da yawaaqiti yaaqu walaaw sul fadlil asim yàlla moo amee ngëneel gu jeex ngëneel yooyu ca la ma yàlla jox ma liggéey lasmaal usna wëli yu mosu ko liggéey ba ba ba lasmaal usna di lasmaal usna ak tey amul benn wëli bu yàlla may ci faydu nga mën a liggéey kem di Cheikh Wala Jaman daf liggéey liggéey nañ lu ne lu ne woy nañ ko waaye kem téere bi ñu woy woyuñ ko maa ngi la koy wax barki démb dama taxaw ci géej gi xool lëndëm gi ak yëgatu bi ma ne ko kabarakal bahru kabarakal bahru kabarakal baruwal yataanu maatiya tamam kabarakal baruwal yataanu maatiya dina kabarakal baruwal yataanu maatiya dikki sëñ Moustapha soxla jamono géej gi la wax ndax baal xel ne yàlla lépp lu mu mën a xam ne yàlla dara réerewut yàlla mu ne ko yàlla kabaraka màggal na la bëxru géej gi yemut ca wala xiitaanu mbir moom jën ya ca biir géej ga maadihatan woy tagg lañ yow yàlla alkibriyaawu riddaa yi yàlla mu ne kibriyaawu sama làmbaay la sooxala jamono ne ko yow géej gi mu ngi lay màggal jën yi ci biir géej gi ñu ngay tagg kibriyaawu ko ndax yow wa kibriyaawuka lil ikfaau naafiyatun han kuni sadiq bu fekkee dem nga ci tawhiid sellal yàlla wéetal ko nit du ko ci jot ndax woy wow tolloo naag qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan ahadun soxla jamono bu ma ko wax mooy jaam bi yàlla ne ko ashadu an laa ilaha illa allah waahidul lahadi sul jalaali wal ikraami jawaadu maajudu samad sahadata man yastayqinu wa yuhaqqu bil musahadati wal hayaan wa yastabsiru wa yastidlu bi hujjil bahira wa qawatil buran ana al haqq subhanahu wa taala wahidun muttasifun bi sifatil jalali wal jamal wal kamal kooku mooy Cheikh El Hadj Omar Ndao seede gi mu seede yàlla seede goo xam ne dafay tegtalu gu dëggu ci li ma seede seede gi mu seede yàlla Moustapha sahadata kullu habdin saalihin fi samain wal ardi bépp jaam bu baax nu mu seedee yàlla ci kaw moo xam malaaka la mu xarab ak nit ku mën a baax alajama ndaw saxada boobu la am ci yàlla noonu la jeexe ci yàlla yenent bee ko yar mooy sëriñam yenent bi alajama ndaw xalifam la téere bii lasmaal usna la tudd moom la ci woy waaye yawaaqit lañ koy wax yawaaqitul faraidi wurus yu beddeeku yi la ko tuddee yàlla rekk ci ne turam newut ci ak rasulullaay li Cheikh doon jàng tuuti mu ngay jàng samat samat jàng nga ko xul huwallaahu ahad mhm. allaahu samat mhm. samat mooy ki ñëpp jublu ñun ñëpp samadu lañ jublu buñ xëyee ku ne am na foo jëm dàkki fa samat te da ko fa fekk mhm. tasadakal xalqu muxtaajiina xaatibatan yaa maalikal mulki mbindeef yëpp yow lañ jublu yaa samadu ndax yaa leen xattan kenn xattanul leen kooku la ne ko bi la mbindeef yi jubloo ñoom yestam tirul fatha mustamtarina jamian musna mawhibatin yaa muksiral jodi mbindeef yi ñu ngay sàkkoo tawlu nga tawal leen niiru may leen lu ñu am def ci poos ndax yow yaa muksiral jodi yaa di aji bëri ci tab tab yaa yaa ci bëri boo mayee ñëpp mu ne ko yàlla su mayee ñëpp ka annahum miqyatun fil bahri yaa sanadi li fay di wuj dikk yaa waajiri loolu la wax yàlla ne ko boo mayee ñëpp dafa mel ni puso bu dugg ci géej génn noonu la mel tab gi yàlla tab la ne ko bu ñu jëlee boo nga may ñëpp mu mel ni puso ci géej hmm? bu waxee yàlla li mu koy wax ci wéetal ko ci saxaada bii ma la wax ne la am ci yàlla nekk xalifa bi bi nekk gi mu ko nekk daf la cay taggal yenente bi ci samadu ndax wax na yàlla mooy samadu ba pare léegi nag lan la yenente bi doon ci samadu mooy ñun bi ñu jubloo yàlla ñun lu ñu am lañ uti yenente bi bi mu jubloo yàlla cheikh lan la uti mu ne ko xasadakal hibbu tam jiidan xasadakal hibbu jublu na la soppe bi tam jiidan wa sumratu soppe bi bi mu jubloo yàlla moom dafa jublu yàlla ngir teddal ko safwatu xalqika ya samadu yàlla Moustapha Ndaw mu ne yàlla sa wattahu sanga nga rasulullaay naasiyan mu daa ji set wecc xillan xarit la yukarrimahu dana teral rasulullahi ahlu samawati ya samadu yàlla wa asamaan danañ teral rasulullahi taato saafiyan laabal nga rasulullahi mu daa ji set mustakmilan nee na lam yasalillahu yanquluni min aslaabi tayri ila arhami sakki yi ila lam yasalillahu فهدى ساعك ينخلو من تاير تهيب taayri rey mi Seydina Muhammad ne yàlla dañut di ma jàllar bi ci ay baay yu set ak yaay yu set ilaa an wasala noora ilaa sulba abi abdillah bal sama leer gi dugg ci sama ndigal baay abdullahi ilaa waw minu ilaa waji ummi amina ba ca sama biiru ndey yàllool xalaayeqa ya samad yàlla kon yenent bi moo kawe mboolem mbindéef yi wajhal basirati loolu Moustapha mooy li yéeme nag wajhal basirati mu ne yàlla man yow wax naa la samadu li nga doon wax sa jaam bi lim do ci samadu waaye sa jaami jaam bi te muy àlla jowan ndaw wajhal yàlla nga def basirati sama gis gi sama bët bii yaa rahmaanu yow yéreme bi mob siratan mada aji gis afdala xalqika ki gën ki gën ci sa mbindéef te mooy Seydina Muhammad afdalu man kaana Moustapha yenente bi moo gëm képp ku nekk charohin di borom ak roohu wasa jasadin wala muy borom ak jëmm ala jamar ndaw mu ne génnewu ma kenn setteewu ma kenn yent bi la gëm kulli wajhin ñu ne faaroox moom ci ban xanam la gëm ci rasulullahi salaalilaahu sa maam ñu ne ko ci ban xanam la gën bilaa sakin mu ne moo gën ci bépp xanam boo jël yenent be ci gën bilaa sakin li ma wax si ko wala kasibin duur wax ju du dëgg bal bil kusufaatiya mooy di yàlla. loolu nag moom mooy la ci yéeme nag mu ne moom daf ko jot ci kasfu. wa xujjajin. ah yow ki àggut ci kasfu. jotee naa ko feneen nga ne ko fan mu ne ci ay lay. kasamoosin. lay yu mel ni ay jant ci njolloor. wataajiratin. buñ demee ba une heure ñu monté ci asamaan si ay jant. laa xamee ne yenent bee gën lu yàlla bindi min noori sir ya mooy di yàlla yow kii dox ci tegtal nag soo bëggee xam li may wax man Omar Ndaw demal nga seeti leer ak alquran rabiona la wàllu soppor sooy dafa ñu magal ko waay seedo laa jaman ndaw yenent bi kañ la juddu lanwaaru mawlidahu mu ne weer wi ñuy wax rabi xol la woon wa yëbbo xeedun ترسيما بلا xam nga ne inna heddata la isna moo tax ñi fi nekk naan gàmmu bi daal ak bi du bi daal nañ wallaay tollootuñ ci gàmmu bi daal ak du bi lan la ñu yonent bi defal wattafaqal qurru lan la gàmmu defal wa tafaqal qurru Aliou ki too ki nga xam ne bu duutoon ak moom doo sotti wa tafaqal qurru ndax moo nekk muhammadun aslu ak waani mooy cosaan li wa tafaqal qurru muhammadun nuuru ak waani mooy leer gi wa tafaqal qurru muhammadun sababul ak waani wa tafaqal qurru duutoon ak moom du sotti wa tafaqal qurru ne baal ñi fi ne bidaa la ca déglu ma wa dëppoo na turan alqurru sang ya weex turan mboole seen anna mawlido ne naka màggal juddi rasulullahi xayru layaali ala illaaqi nasim moo gën màggal guddi guddit moom inna ansalnaahu fii laylatil qadri lay tolloon quatre-vingt-trois cent la yàlla ne la guddig laylatul qadri tolloon te guddig juddi Seydina Muhammad moo kawe guddik laylatul qadri wa man jadda ndax su duutoon a Seydina Muhammad laylatul qadri du am wa man jadda soxla jamono mu ne yéen ñi préparé pour màggal déglu leen ma wa kullu man jadda yéen ñi nga xam ne fas ngeen ko màggal na ngeen ma déglu lil mawlodi ku bëgg a màggal kiñ jur yox simo koo xam ne bëgg ngaa farlu ngir kiñ jur ngir màggal ko fa faw soo ala jamono ndaw garanti na la mu ne sa fa soo oh, yow mi ko màggal bi nabi mu nekk na ci rasulullaay xayru mun katimi texe gën na bëtuñ ko Moustapha هر نزال ومريم وازيات من الأوادر وتمولد العلم خلق الله من نور برحمته مخصصا بأعلى عباد والقتم من وراه جبريل وعلى واقف يواجه مع الكرام من الأملاك للأكم خلق الله من نور برحمتي مقاصصا بعلى إفاد والقتم نين ميكائيل واقف يمين منات لهم سناء وتسبيح لذي الخدم على قوله من نور برحمتي مقاصصا بأعلى عباد والختم من وامتلى البيت بالأنوار لا نهاية لهم سيد وتنزيل لرورهم خلق الله من نار برحمتي مقاصصة على عباد والقتم نلوم تلا البيت صلى الله عليه وسلم wamtalaal baytu mu ne makka fees na huwalan waaru fees na ak leer wamtalaal baytu bilan waari mu ne leer ya fees nañ ca makka laami atan mbiram nekk daa ji lawum soxoodun ñeel na ak héeg watan siilun ak ak wàcc li noori mi. ngir seen leer gi te mooy rasulullah. fooqalibbu. Moustapha Cheikh El Hadj Wanda mu lay nettali bi yonent bay juddu ca altine ja ca fajar ga. fooqalibbu. mu ne fooqa juddu na alhibbu soppe bi. bilan waari. ba muy juddu dafa ànd leer. muxtamidan. mu daa ji sukkandeku. halaa yadayni. ñaari loxo. huma. ñaari loxo ya. aj wadu loo gën a tab min diyamin ci taw waame waraa fi an tarfo yarma ko qiyatan montasiran nuruhu fi horde wal ajami rasulullahi moo ma leen gënal nabi Mustafa doo seen morom borom daal wala fi an tarfo mu daa ji yëkkati gisam yarmaqu yarmaqu mu ngay ropp ca kaw arxiyaatan ca dell asamaan lay xool muntasiran mbiram nekk di aji tasaaroo nooro leer ak rasulullahi fil xorbi ci harab wal ajami ak làkkat kusooru xaysara Moustapha yonent bi bi muy juddu jëlee nañ ci saxaaba bu ñuy wax maysara mu ne ko inni la mun la inni la xaatamu nabiina xendallaayi wa aadamu la mun jaddalun fitinatihi ne ko man maay kii yàlla mottilee yonent yi te booba aadama ñu ngi ko taxañ ci ban maanaam booba bindaguñ aadama laa nekk loola waaye sa axbiruka an awali salika danaa la xamal lu njëkk ana man rasulullahi dahwatu abi ibrahima wa bisaaratul insa wa ruhiyatul ummi maam ibrahima bi mu yëkkatee kaaba wa is yarfon ibrahimu qawaahida min al wa ismail rabbana taqabal mina innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawaabu rahim ba muy sottat def na wa mas fihim rasulan minhum mu ne man la te Ibrahima ñaanoon ne yàlla yónni ko ci Quraysi mu ne yonent bi ne man la bi saaratu Isa man la wa mubassiran bi rasulin yaatiya min ba'di ismu Ahmadu Isa moo ko waxoon maa ngi leen di bégal ci yonent bii ñëw sama gannaaw Ahmad laay tudd waaye gis nga turu Ahmad Moustapha moom la gaa yi xamut turu Ahmad mooy turu baatinu rasulullahi ñoom Muhammad lañ xam Muhammad mooy turu saahir bi baatin bi nag ñëpp xamuñ ko laysa nabiyoona wala saalu كلهم بمدركين بسر أحمد العلمي ولا ولي ولا ولي ولا قطب ولا قطب ولا ملك xasasahu llahu bil badi wa munkatimi soo maam mu ne laysa nabiyuna cent vingt quatre cent vingt quatre lañ ñi yàlla solal nabi yu mooy ki yàlla jox xam-xam bi te waxul la demal fenn rasulu mooy ki mu ko jox te naa demal fenn ne maa la yónni amul ku ci xam sekkera rasululaay muy ahmad kenn xamul ko wala waliyun alaa jaman mun a waliyu xamul ko xutbu xamu ko malaaka xamu ko xasa saw laaw bi madi wa mun katimi yàlla moo ko jagleel yenente bi xaqiqatu sirri soo maa mu ne dëgg-dëgg sekkere ci bi lil abibi ahmadina min xesatil xaybili rahmaani sil xidami mooy la Insa waxoon mu ne maay ruhiyatul ummi lan la yaayam gisoon mooy xusóor a Kaysara bi yeneen bi juddoo Moustapha ñi nekk Màkk dañoo gis pale Kaysara ba te Kaysara ak Màkk soo koy dox di nga dox weer ci tànk ku taxaw Màkk yaa ngi gis pale ba yeneen bi nee na loola man la moo tax sama am ne xusóoru Kaysara njënd Kaysara ya bilan waari ca leer ya shaayiratun way aji feeñee la mubsaratun luñ gis la jëhratan ci lu feeñ lu njembeer li saakinil wurami ca ña dëkkee Makka gis nañ palew Kaysara ba muusa bian yeneen bi ba juddoo dafa sàbbal li malikin ñeel buur bi maajidin buur banaa ji tedd samadin buur bi ñëpp jublu wa hamidan moo tax ji sant yàlla liotaasi ca tisooli ga bàyyi sa rimam mi ki nga xam ne mooy dekkal yax yi fu na xëy te mooy wa dehiban yenente bi bi mu juddoo dañ koo diw wa day nan dañ ko parfo diw ko xiila am na ñu wax ne surato lu tab rasulullahi lu tuba taqatwa dagg na lu tuba xoddaraatu sas faam yi dagguñ ko xool yaa kattanal yàllaa ko dagg xani saami kattan li nga xam ne du sonn du yokkat kaana kahiilan Moustapha yenente bi muy judd dañ ko tus ngalaale wa maxtuunan dañ ko lakkalaale xaaruñ ba màgg ñu door ko yóbbu docteur bi fitnati noonu la ko yàlla bindee wa saybatul amdi borom béjjaaw buñ sant ba te mooy maam ja xiila am na ko wax ne xaatinul faymi moom moo jongal rasulullaay rama sayaatina bi yeneen tibee juddu dañoo sànni seytaane suxbaanun seytaane moo ko wax ci alquran wa inna lamasna samaa fa wajadnaha mulliyan arsan sadidan wa suhuban munawaratun bi yeneen yàlla Eesa juddoo lañ leen dàq ba asamaanu rabia waran na iblis bi seydina Muhammad juddoo ñu dàq seytaane ndax da daan sàcc dégg di indi xibaar malxoonan kon iblis dafa binni bi yeneen bi juddoo maasa demi mala woonaan kuñ rëbb na maasa demi ànd ak njàqare wan saqa seexola jaman ndaw loolu rek xew ca njudd ga mu ne déedéet xotteeku na iwaanu kisra pale xaysara ba xotteeku na xayru muxtadilin seen pale bi dafa xotteeku fukki xotteeku xotteeku ak ñeent wan kabati layla buur bi dem ci gisaankat yi ne ko dañ gis lu ñu jaaxal ndax pale bi dafa xar fukki xotteeku xotteeku ak ñeent mu ne ko seen nguur gi des na fukki buur ak ñeent mu ne àddina bi jeexagut ci ñun ndax ñun dañuy dund junne at waaye ñoom ñëpp ci diir bu gàtt lañ ko léegi dafa am fu ma bëgg ñu ñëw ndax xam naa ni temps li si des bëreetul téléspectateurs yi ñu ngi ñuy bàyyi xel ndax bëgg naa tey nga leeral ñu euh, lan moo tax mbiru euh, Cheikh El Hadj Omar Ndao euh, siiwul comme yeneen sëriñ yi nga xam ni tey ñu ngi fi loolu bëgg nañ nga leeral ko te digganteem ak gàmmu ndax tey daanaka ñu ngi si gàmmu te ñu ngi si weeru gàmm gi nii tey bëgg nañoo xam Cheikh El Hadj Ndao nan la daan gàmmu yooyu yëpp bëgg nañ nga leeral ni ko muy ñaari question yoo xam ne maa bëgg nga téye ko ndax dama bëgg nga ñëw si léegi rapidement nga leeral ko téléspectateur u 7TV yi eh, ñi ngi leen di safoo yéen ñi nga xam ne yéenay suivre 7TV yéen ñi nga xam ne yéenay nekk si Facebook bi ñi ngi leen di siyaare bu baax a baax a baax ndax ñi ngi gis seen waa kër yi ñi ngi siy dugg bu baax a baax baax baax te ñi ngi a baa ngi lay siyaare eh, borom ji borom si te ji Jili Mbay maa ngi lay siyaare bu baax soxna mami ñu ngi lay siyaare bu baax te di la jox sa wàccu baay di nuyu suñu xarit eh, El Hadji Omar El Hadji Mor sopp na bi di baron de sociale koo xam ni wax dëgg yàlla si sociale rek lay dox ñu ngi koy siyaare bu baax dëkk Thiès di suñu xarit di suñu kilifa ñu koy ñaanal moom mu yàgg fi loolu te ànd ak wér Cheikh maa ngi lay siyaare xam naa ne kontaan nga trop tey sa sa bis bi dikkal ma si si si lan la sëñ bi daan gàmmoo ak mbiram yi lan moo waral tey comme yeneen sëriñ yi ni mu mel melu noonu ma njëkkee ci ban. boo la si neex rek ndax damaa bëgg ñu ñu tënk ko ndax temps bi li si des. bëri gàmmu de bu teruwaan weeru gàmm mhm. mbégteem day gën a day dolleeku. Mhm. ndeg bëgg gi mu bëgg Seydina Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. bi ñuy ñëw maa koy wax kii ma ne la ñu xalifa Basir waxoon. gàmm goo xam ne dafa tombé nawet comme gii. mu ne Cheikh Ola jamono da wax euh, jarbaatam bu ñuy wax alaaji moot faatu dem. Mhm. ne ko génnal nga yéebaane nit ñi ndax bu asamaan si dafa taw. génnal nga yéebaane nit ñi neen ñu génn ci hëtti bi duñ suukar moom mu génn ne nañ sol seen paase yi jasineere sol leen ko mu tooy nag yenente bi gàmmu moom euh, euh, xam nga Cheikh Jamono ndax Moustapha hmm. bëgg rasulullaay nit jotu ko ci bëgg ko déedéet xam nga Seydina Omar sahaaba la hmm. yenent bi daf ko laaj na ko Omar loo gën a bëgg mu ne ko sudul doom ak yaay ak jabar yaa ma gënal ñëpp mu ne ko yow sa mbëgg fa des. mu delluwaat ko mu ne ko yaa ma gënal lu yàlla bind mu ne ko al ana gi nga seexolaa jamono ndaw daf na yàlla amatanallaahu bi hubbi ali wa hubbi hibbi xaribil mugmili yàlla yal nga ma rey ci bëgg la waaye yal nga ma rey ci bëgg sa sopp bi bëgg gi mu bëgg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa doom ju góor ji mu am yeneen bi la ko tuddee mm-hmm. ku ñuy wax Mouhamadul Moustapha la njëkk xam nga Moustapha mooy lan ci yenente bi hmm. mooy roxoom gi moom rek ngay fekk nag ku lay wax yenente bi ni Moustapha la tudd wax la lan mooy Moustapha su la neexee nga yëri téere yi hmm. wala nga laaj ñu ko yër hmm. Cheikh Ola Jaman Ndaw rek mooy bind na yenente bi tudd na Moustapha ci fan la ko tudd mu ne ahmaduna al Moustapha ruuhan wa mahrifatan qabla al xalaa'iq fa la ko tudd tudd na muntaqa yonent bi muntaqa la fan la ko tudd mu ne taaru taar bi jëmm ji taaru nga xam ne yonent bi wa mislahanu hmm, sama na fi sama min amul nopp boo xam ne mën nga dégg dégg ku mel ni yonent bi amul bët bu mën a gis gis ku mel ni yenent bi jëmm jooja mooy muntaqa wal muntaqa abyadul lawni wa suuba la jël basir tudd na ko yonent bi mooy basir hmm, wa mu basiran bi euh, boo demee ci alquran yaa yoon na bi sa arsalnaaka sahidan umu basiram basir la li si rasadin loolu Cheikhul Jawanna moo koy détaillé ba tey bu fekkoon ne temps bi mayee na ko ñaar téeméeri tuur yi yenent bi tudd te moom nga xam ne moom la borom xam-xam yi wax moom ne yaar téeméeri tuur ak benn la yenent bi am loolu woy na ko te mooy téere bi ñu doon jàng nii loolu makk noonu ci la ko woy bokkut ak yawaaqit bi waaye moom dafay woy dafay tuddee yenent bi tur yoo xam ne ñoom duñ ko ko tuddee dina ko wax bawaa ba sirrik ko wax xillu Hmm? dina ko wax tiraasa xidramika tiraasa gis nga suma grand bubu bii lii lii mooy tiraasa xam nga lii mooy génne yére bi noonu nga mel ci nit ñi ni ni da ni daaw mi na bi mel ci ñaw bi la yeneen ci mel ci nit ñi dina ko tuddee euh, xidramikal xiddi xidli mooy ba dee ba ca digg géej ga fa jukk ba ne hmm? kooku mooy yenente bi loolu doo ko fekk ci asmaa Muhammad ak yeneen i tur yoo xam ne ñu ngi ci biir Yawaaqit hmm? maanaam ni mu ko bëggee euh, dina tumaranke ku ko bëggee wax naa la bàyyam moo ko jàngal alquran ba mu mokkal moo ko may tariq may ko muqaddam tu tuddewul bàyyam doom ndekkan Seydina Muhammad kenn ci doomam yi am doom na ko dama la ko bëggoon a tuddee mu ne ko xaq waajur kenn gënul ma koo xam waaye damaa lab ci bëgg Seydina Muhammad ñett ñett la ñaan yàlla rey ko ci mooy bëgg yàlla bëgg rasulullaay bëgg seexuna tijaani tijaan yi ñett lañaan ñaan dee ci liñ doon wax moo ko wax ci gàmm te mooy ñu dalee ci rabbi xonaa la walu te soxlaa jamono ndaw daleel nañu yenent bi bam dee du dara ba dara di dara ba nga xamee ne xadayta am raka moo ji daan li qudwatina na i xalqika yàlla ba mu décidé décidé décision ba fal ala jamono ndaw dalee moom rek nag tam moo def salaatu boo xam ne fii wokku fii xesen moo ko wokk Seexna euh, Tijaani yu dafa wax ne xammaa rabbaani mooy xam ak yàlla yenent bi la waa ji laaj na ko yàlla fu mu newoon bi mu bindagul dara mu ne ko kaana fil xamaa damay tënk fu mu newoon mu ne ko ci niir la newoon niir ci waxu arab xamaa euh, ci lu ko arab mooy niir waaye xamaa bi yeneen ci bi doon mooy xamaa xadru tamsi wa xamaa saati yi mooy nit ñi gëlëm gi ñu gëlëm ci yàlla kenn xamut ci yàlla dara loolu la yeneen ci bi namoon Cheikh naa Tidiane mu ne foofu la fa génnaate yu sama suuran lu génnee ci xamaa rabbaan yi suuran lañ koy tuddee boo demee ci salawaat yi nga xam ne tey ay ay akaabirul aktaab ñu ngi koy def ma jukki la ci kenn ku mel ne Abdou Salaam ibnu Masis nga xam ne mu ngi ci téere yi ñu bëri xam nañ ko def na ci benn julli mu ne allahumma salli wa sallim ala awwali taayunaati al mufaadati min hadrati Hamma Rabbani waaye gi nga Seexul Hajji bi mu ñëwee dama naa la fii xesan moo ko wokk fi Seexu Tijaan moo ko wokk ndax moo ne allahumma salli wa sallim ala suurin mustaqrajaati min Hamma Rabbani wa awali faydin muwahidin habidin muxlisin lil haqi wa mufidin min fuyóodi joodi rahmaani kooku nuuri ambiyaay ka axyaar diyaay malaayki malaayikati ka muqtabisin awliyaa'ikal abraar wa bi nihmati ibaadikal mu'miniin kibaarin wa siqaarin salaatu bi alaaji man ndaw moo ko wax waxu Seydina Muhammad ca ba yenent bi nekk gud leer ca ba yenent bi nekk leer la ko topp topp ko topp ko xabir xobay dak xabir xobay dak mahmudan wataatahu qablal xalaaqi Moustapha yenent bi jaar na ci fukki hijaab ak ñaar di jaamu yàlla Alaaji Mandaw topp na ko foofu ne yàlla xamal ma ko fa. yamal foofu ndax euh, fi mu toll nii euh, li ñu desewoon si temps jeex na ndax dañoo war a dem journal dans cinq minutes dañoo war a dem journal danga moo koy tënkal pas màggal may ma lii rek mu tënkal ma ko lan moo tax ay mbiram euh, siiwul comme yenn sëriñ yi ñu siiwee tënkal ñu ko rek. ndax dañoo war a dem journal léegi mu ne wahab li hab dikka. Mhm. fi diini manaaqibahu mhm. zaadiqatan zuhiran siiw na de mu ne yàlla nga may sa jaam bi. ay manaaxib ay may fi diini ci diina zaadiqatan yu dëgg suy yoo xam ne siiw na loolu am na ko ci diina mooy yar ay kumal ci diina gis nga réew mii li mu fi am ci muqaddam ñu mat sëriñ moom rek moo ko fi am muqaddam yu mat sëriñ mhm. moom rek moo ko am ci sëriñ si nekk ci réew mi mhm. ñim yar ci ay kumal kenn xamul nuñ toll ci réew mii mhm. dëkk bi ay muqaddama ngi fi dëkkam bii ay muqaddama fi ay seex fi foo dem ci réew mi Cheikh Ola Jama Ndaw famille Burhan bi Sénégal di dal ca Makka Burhan ci boppam Ala Jama Ndaw moo ko may tariqa tijaani yu waaw moo ko may moo ko ko dimbalee diggante moom ak sëriñ si mi yaa ma koy laaj duma ci mën a sori. Ah. ndex fi jamono toll tey. Ah. waaye El Hadj Abdoulaye Cissé Dabakh ñëw na ci Cheikh Ola Jaman Ndaw ñetti yoon. Ah. Serigne Saliou ñëw na fa. falaa ci mën a yem. léegi nañ nañ nañ ko leb ndax dañoo bëgg après gàmmu yéen ngeen ñëwaat fii. Eh, ñu def ko heure normale 17h bi parce que waar yi dañoo war a dem journal léegi te xam nga journal moom daanaka mun taxaat ñu ngi leen koy jéggalu nag bu baax baax dañu leen bàyyi ngeen tàggatoo ajjuma eh, ak jàmm incha allah rabbi ngeen ngeen ngeen peut-être ajjuma bii suñu jugee si gàmmu gi premier ajuma bi si topp ñu indiwaat leen ndax kii ay mbiram euh, jot na Sénégal xam ko ñu ngi lañ koy jéggalu nag bu baax a baax baax lan ngay tàggatoo. Euh, ñàkk koo xam ci ñun ci réew mi. Mm-hmm. ñàkk sens la. Mm-hmm. ndax da doon wax ne. xand mm-hmm. xand man ndey du ko sëy. bàyyi du ko faggu góor jaay jaru ko ndimbalal yàlla la. man seen muud la muqaddam bi ñuy wax Alaaji Abdou Salaam Gueye daf ko daf ko wax ne. Euh, euh, yaa wooy le yaa wooy la tee layta nii la ma taqis fulaanan qalilan xellantoon du ma la jàpp ngaay suma xarit buñ dajee ëllëg yowmal xiyam doo ko wax ndax bu ardul jamee yàlla dajale jaam yi diggante yenente bi ak sa sëriñ kenn du fa dox waaye yow Abdou Salaam sa kenn du fa dox gis nga bu fekkoon réew mi am nañ dañuy dem jëli njàngat njàngatam ci jamono ndaw ko suñ doom yi mu ne wa addiba sibyaana bil quraani qiraatan tanassana ridwaani yow ki am doom yar ko ci alquran mu jàng ko nga am leeri ngërëm waxambaane yi ñu yar leen wéy nañ jàng wa addiba subaana bil furqaani qiraat euh, taqalluqan taqalluqan waxambaane yi nañ leen yar ci alquran ñu jikkoo jikkoo alquran te téere boobu tey bu fekkoon temps maye na ko ñu wax téere boobu lam ca wax nga xam ne moo réglé société bi moo réglé nan la nit di nekkee ak nawlem nan la nit di nekkee ak yàlla nan la nit di tarbiya ba am yàlla téere boobu liggéey na ko lim liggéey ci téere Moustapha ëpp na li lim liggéey ci diina deesu ko wax ci xoolal jamono ndaw bu ko réew mi xamul seen ñàkk chance la président yi am ci réew mi Senghor ba Macky Sall xam nañ Daaru Salaam dinañ dinañ ñëwaat si loolu noonu incha allah rabbi du yàgg dara ajuma beneen ajuma suñu jógee si gàmm gi dinañ leen ko indil heure bi nga xam ne moom nañuy dawalee émission bi 17 heures pile su jotee ñu tàmbali ko ndax xam naa ne boobu moom dinañ mën a xaabaabal ndax pas màgget day nañ leen si may ay 20 minutes des fois may ñu si ay 15 minutes incha allah rabbi ñu ngi leen koy jégalu bu baax encore une fois di siyaare waa rési eh, Pape Maguette si complicité bi ñu ngi koy siyaare bu baax eh, ñoom Pape mi bi Modou leen di siyaare bu baax baax te di leen jox seen wàccuwaay képp koo ne mi ngi doon suivre cette TV ñu ngi koy siyaare bu baax di siyaare El Hadji suñu xarit la suñu kilifa suñu lépp la sànq maa ngi koy wax nee naa leen kooku dafay sonn si doomu aadama euh, tey guddig yonent bi nga xam ne wax dëgg yàlla su tàmbalee dootul tàgg day tàggali kook sagoom moom El Hadj Mor Gueye sopp na bi ñu koy siyaare baax dëkk foofu sa Thiès ku mën social ñu ngi koy siyaare moom suñu yaay soxna Kanku Diagne ak waa fondation sopp na bi gépp ak international bi ñu ngi leen siyaare bu baax a baax a baax soxna Mami Kayta borom si ti ji li mbay ñu ngi lay siyaare sama soxna Khadija maa ngi koy baax te ko jox wàcc waa Maguette a ah, ñu bàyyi la nga tëj rek xam naa <laughs> comme que da ngay dem sunnaar wala nga may wala nga may su eh, cheikh bi mu mu tàggatoo nga may ko une minute rek mu tàggatoo mu doog a ñëw ayca tëjal une minute. وربنا قائم بساعة مقتدر دون الماكنية خيوم يداوى وربنا قائم بذات مقتدر بالله ورنا ما من وي أبا وي لمن لي ما بدوي كان بموجب